لنا فدعونا سن وخلي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريايا وابح يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لزاد بسكريايا غفر يا الله غفرت لي رديئك دعي بلا سبب مني عمدتك يا xaar yàlla wabtali min kasu lan faa xamas alate falaa kasu riyaaya wa abu yàlla li xuut asmaan laj yaa man loo umuure waxuut li risaaya rasaaxu yàlla auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xebli safinatan bi kullil janna min daaratil minna liyaasal minna mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi ñoo ngi sant Serigne tubaax Xaadim Rasool di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér naal yi mu naala naa naala ko suñu mu àggale koog sagoom ñoo ngi fii nag tey ci Porokhane bu ñu ne Porokhane ni soxna jaara Bousso bu ñu ne soxna jaara ni màggalu Porokhane ku ne xam ne màggal gi mi ngi yemoog alxames dëppoog le 10 février 2022 waaye tey jii nag ci le 3 février 2022 di bisub xasida yi Porokhane yi Serigne Amsatou Mbacke jaalibatu maraaxib doomi Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul ànd ak waa ëwlu xasida ak mboolem kuréel yi waaye ak mboolem jabatu Serigne Touba gi nag ñu fas yéene tey fekk Serigne Mountakha fii tey ci Porokhane amal guddi àjjuma gi ñu jagleel soxna jaara ñu ne fii nag ci jëwriñu waañ wi jëwriñu maam jaara jëwriñu Serigne Mountakha di soxna Bali Mountakha bintu Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul présidente fondation soxna Bali gis ngeen ko n ci waañ wi moo jiite togg yi jiite mbana yi jiite séddale bi ak cib bi ak yàq bi ak li nga xam ne moo jëm ci kilifa yi ak ñi jàng xasaayit coono yu nekk nag ngir yàlla ak jëmmi soxna jaara ku ne xam na ne alxames la Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw poroxaan waaye alxames gi mu ñëwee poroxaan ba fi nga waxee yow bis set soxna Bally Mountakha day rey ay naji naji nag ñu def ko ci ay gobelet ay sachet ak boisson ak jus nga xam dañ koy def ci ay mbuus di ko séddale ci biir poroxaan gis ngeen image yi noonu muy dawee noonu lay amee saa su ne fii ba keroog ñuy jógee poroxaan noonu la ko soxna fas yéene ànd ak yéen démb ci waxtu wi nag woo na sëriñu daara yi huit cent saaku ceeb yoo xam da leen koo jox ngir jëmmi alxuraan yooyu yëpp nag mu am ci turu fondation soxna Baali Muntaxa soxna Baali Cheikh Sohaibou bu ñu dend ak Alaaji Seydou Si grand communicateur mooy communicateur Serigne Fallou waaye nag di kenn soxna Baali Sohaibou bu ñu jëbal ko kàddu gi. jërëjëf Gaydel noonu nga ko waxee rek noonu rek la demee ñoo ngi fii ci Porokhane di siyaar bu baax Cheikh Mamadou Muntaxa borom mbégte mi tey ñaan sama borom guddal ko fanam te wéral ko. noonu la ñuy ziare soxna Baali Muntaxa soxna Baali Cheikh Soyibu ak fondation bi nga xam ne soxna Baali Muntaxa moo ko jiite ànd ak Serigne Cheikh Diop noonu nga ko waxee noonu la ko soxna Baali defee gis ngeen soxna Baali mooy jëwriñu waañ wi di jëwriñu soxna jaara di jëwriñu seex muntaxal Bachir xoolal soxna Baali ni mu soloo ak nii mu laxasaayoo ne ci waañ wi di séddale ndab yi bi mu jugee ci dëkk ba tey ànd ak seex Mamadul Muntaxa di séddale ndab yi di séddale li nga xamante ne mooy ceeb bi nga xam ne fondation soxna Baali Muntaxa 800 saaku ceeb séddale ne ko daaree alxuraan yi séddale ko jumaa yi séddale ko tund wii nga xam ne mooy tund poroxaan gépp boole koog 1700 ay paquetu ndox ak boisson ak ndawal di ko séddale ñi nga xam ne ñoo yor daaree alxuraan yi ñoo yor jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ji nga xam ne ci poroxaan ak jumaa yi ko wër ak moo nam ju dëkkuwaay yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci poroxaan soxna baaleeg leen di séddale li nga xam ne mooy ndimbalu fondation bi nga xam ne moo ngi koy jox ñi nga xam ne ñoo féete fii